maa ngi lay nuyu bu baax di bu baax a baax ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi jóg si yonte bi di sant suñu ñaari waajur di sant mbokk téléspectateurs yi mbokk internet di sant Wagy TV yi di sant Grand Buzz nga xamante ni gis nañ làmb ni mu nim ni mu ko taxawoo ak innovation bi mu si def ak yooyu yëpp gaa yi gis nañ ko macha allah di ko nuyu bu baax a baax a baax xam nga waaw. dimanche passé da nga bëri sa diggante ak ak ak ak caatu yaraax combat bi yaakaar naa ni loolu yàggoon a bëgg mu taxaw la. lan nga gisoon ba bëgg a bëgg bëri ak sa adversaire waaw combat bi sax nekkul lu ñu yàggoon bëgg mu taxaw parce que promoteur benn fan nga ko dox rek man si jour bi dañ ma woo ngoon gi ñu confirmé ñu woo ma si rendez-vous ne ma combat bi taxaw na xam nga kon ñun yaakaar naa ne combat bi kii kii wuñu ko woon mais nag dafa taxaw ñu préparé ko am combat am na cinq mois ñu préparé ko préparation bu metti préparé ko préparation bu jaar yoon ñëw bëreeg moom waaw ànd ak suñu ay mbokk ñëpp biir gars yi ànd ak waa Marika ñëpp ñoom Sénégal gars yi mafia bi gars yëpp ñëpp jàpp si lamb ji nekk lamb boo xamante ni man gars yi ñoom ko gën a bëgg yàlla xam na ko gars yi ñoom ko gënoon bëgg dañ nga ci ay coono daal ko baax a baax a baax a baax a baax biir ay ay coono yu métti sax mais nag sant yàlla bu nekk dégg naa ko si mais sant yàlla ci lan nga gënoon lamb mu nekk loo xamante ni kenn mënu koo maanaam lamb tey jii comme waaw comme ñi siy wax mu mënoo nekk expert ba xam ko kenn mënu koo analyser comprendre parce que ñu bëri tey ak lamb tey jii caatu yaa ko joxoon favori ci combat bi mais biñ dagantee ku xool ku xam gàmb di nga xam ne kii ëpp ma doole yaa ngi dégg te maa ko dàq bëre ku xool xeex bi di xam ne carrément man ma xeex bi man maa ko dàq xeex foofu parce que man maa ko duma yaa ngi dégg waaw noonu la demee. ko joxoon daf la doon déranger wala lan. waaw xam nga tax daf ma doon déranger parce que parce que parce que parce que ñooñu xamuñu gàmb. tamit dana gis def ay performance yi nga xamante ne di wane oh, boppam. ñu jox ko favori ci loolu. ñi doon analyser xam nga si gan nga doon analyser si côté gabarit parce que dañ ko xool si miskikaatigam posture bi rafet na xam nga man boo ma xoogee dama foog mbër ñu jox ko làmb ji yaa ngi dégg barki alxuraanu karim du caaxaan mais nag sant yàlla ñun ay mbër lañ yàgg naa la ko wax ne ñun mën nga noo gis xeeb ñu mais buñ duggee si géew bi noonu di nga xam ne carrément kii mbër la yàlla moo ko def si ñun. bi ngeen jàppante lan nga sentir ci moom. bi ñu jàppante si man ak moom mooy li ma wax rek gis nga euh, doogee dëgër. tant que jàppagante woon doo xam yàgg naa ko maa ëpp dooge te biñ jàppantee dama ko sentir parce que am na benn sax bi ma koy bal noonu muy tëb si kaw wóor na na ma ne kii man maa ko ëpp dooge man kii wóor na ma ne kii bu dee dooge kese ga dooge contact dooge biir non man maa ko ëpp moom musculature gis nga musculature ak dooge bi nga xamante ni da nga ko entraîné physiquement bokkul loolu la gars yi di jaawale te ñun ma allah dañoo am dooge ay xarala lañ. maanaam muscle ak doole daal du dooge. doogee ci biir bokkul wër na yàgg. Hmm. waaw ñun dañoo am doogee naturel ci biir. ci biir ci biir xeex bi parce que bari na ñu xamante ne xam nañ leen yéen ñaar ñëpp jàppoon nañ ni combat bi du bokk ak combat yi nga xam ne Caatu Yaraax na ko bëree ñëw rek taxañ adversaire am ci ay 9 secondes 8 secondes ñu bari jàppoon nañ ne dina am xeex dina am bëre te effectivement noonu ngeen ko noonu ngeen ko wanee léegi ni ngeen ba arbitre sifflé ba première action bi laa bëgg nga ñëwoon. waaw parce que ak bi dafa sifflé man Caatu Yaraax ñun wér nañ ay combat seetaan naa combat yëpp xool ko xool ay déplacement am ñi doon analyser yëpp parce que moom ñi mu doon bëreer di leen daan si combat yi gaaw ñooñu ay pied gauche fausse ñu normal la ñuy teg comme moom c'est comme mooy ñu gàddu bi moom gàddu normal doon teg te man fausse gàddu gaa garde normal boobu ñoom ñaar ñu doon teg mooy comme mbër yi ma doon daje ñuy teg pied gauche comme moom da di attaqué boo dóoree bu wàccee suuf day am sa tànk parce que moom ay goo xam dafa gudd teg kawam diis na bu ko defee day mën a bu téewee force da ngay daanu parce que parce que kaw gi am na doole yaa ngi dégg mais bokkul man fausse garde gaay teg yaa ngi dégg te man macha allah am naa doogay tànk man wóor na ma ne song mënu ma see daan mun moom mënu maa daan si song ma te duma songu parce que fos garde gaay teg te fausse garde heure bi bëri garde normal garde normal day am programme. dafa mel ni yow bokkoo ci mbër yi nga xamante ne am adversaire naan lijjanti ma lu mu mëne. déedéet man damay lijjanti li nga mëneeg du nga mënewul damay lijjanti say faay ak say fort ba xam ko. yaa ngi dégg préparé ko man noonu laay préparé combat moo tax ñu bëri di di di di di wax mais yaa nga xam ne làmb ji teguma ko si mystique mais si entraînement laa ko teg ak si xam ngi may def parce que làmb daf ñoo jaral nee na damay wax chaque jour mu ne man yaakaaruma si làmb mais làmb mooy yaakaar si man man dama bokk si mbër yi fi war a jëgee six personnes yi nga xamante ni ñoo nekk si kaw di fayee ko ay millions bàyyi gaaye man ñoo sama gëm-gëm la te damay doon ko des arènes loolu dama ko gëm depuis bëreeguma sax arène yàlla xam na ko ba léegi yàlla mi ñuy suturaal yal nañu yàlla continuer noonu duñ suturaal bañ yegg fa. léegi problème coow li mu ngi ci am na ñu ne am nañu ko beneen am ci beneen angle bi yow yaay jiitu am na ñu ni angle bi bi nga xamante ne moom lañ doonee direct bi moom moo jiitu lan mooy problème bi. non man nag dégguma sax ku ne dañoo wane si beneen angle man maa jiitu angle yi ñu wane yëpp moom moo jiitu parce que tey ji si xeex bi nga njëkkee dafa daw xeex man heure xeex bi. man maa empêché moom mu xeexee waxu gauche parce que xam naa ne wax dugaatam baaxul te gauche bi da siy cokkaas rek mais cokkaas boobu daa doon bañ mu def ko si gauche bi moo cokkaasu bi daal di dox benn pas kii avant pour moom mu dóor dugaat te dugaat bu koy dóor da koy gaaw bu ko dóoree damay esquiver daal di koy dóor ko mu taxaw yaa ngi dégg léegi bi ñu dawee songante noonu nag Sika daw daal koy xaw a fiiree nii wër ko takk ko takk wet gi dama ko bëggoon tegal 16 dama ko bëggoon tegal 16 mais dafa pensé wu si kanam moo tax instant boobu noonu dama gën a tafu si wet gi pour mu mbot man maa ko imposer mbot bi pour mu mbot ma imposer ko bi mu mbotee parce que wóor na su mbotee noonu man su ma doxee benn pas su ma su ma bàyyee ngemb gi su ma ko mbaaree force kanamam day jiitu loolu moo doon gàmb ji ma bës ko kanam bopp bi moo njëkk a jiitu mais arbitre bi niir ga nit kase ga xëy na action bi gaaw na peut-être mënu ko gis mais di diggante CNG bi ngir yàgg CNG bi ñoom nee nañu gàmb ji dañ koo bëgg a ngir yàgg nañ ñu tegal assistance vidéo nga xamante ni même bu dee recours bi da nga koy fay recours vingt cinq mille francs la bu fekkee da koy fay waaw même bu fekkee da koy fay si saasi nga fay ko si saasi loolu maa ngi koy lancé waa CNG bi ñu jàppale mbër si loolu ak àll bi loolu am na solo comme ni ñu koy defee ci bëri simple bi mais am na beneen affaire tamit deuxième action bi dafa mel na nga sonn déedéet lamb ji sonn ma dama se bi ñuy jàppantee di dóorante ay hypercule dama ko dóor hypercule mu dal ko si jë sama loxo bi wan wan kii wan naa ko gars yi émission bi doon def démba dafa neewi woon sama baaraam bi mënutuma koo ngëpp léegi instant boobu il fallait que ma bëggee xel euh, bëggee xel bi mooy ma jéem a tante ko dara moom mu def action ma daan ko si action am loolu laa doon tante. est daf mel na nga doyaloon ndax première action. nga xam na ne doyagu ma dama ko bëggoon a daanaat barki saraatu faatee du caaxaan yaa nga dogal foofu mu daan ma. foofu moom ñaari yoon la daan def nga quatre appuis ba pare daan. non def ma quatre bi parce que wax yi fekkante wuñ waaw quatre appuis def ma ko parce que waxante yi fekk wax yi fekkante dernière action bi damaa daanu jël bu gar naan. léegi bind nga sa recours. waaw bind bind nañ ko ko dugal nañ ko. kan mooy sa manager. Matar Ndiaye. waaw def na ko te ñu ngi siy topp te loolu moom xam naa ne du yàgg incha allah bi ñu déggoon ci am nañ ci yaakaar à 100 pour cent que dinañ ñu déggoon suñu drapeau. waaw loolu am na solo fa léegi bu fekkee jox confirmé nañ kii ni daan nga ko foo jëm. waaw instant bi moom wax dëgg yàlla parce que dañ ne woon caatu yoo xam moo sës si booy yi dañ ne woon caatu dañ ne woon caatu yoo xam moom moo sës si booy yi e bi yàgga dogal na ne bu gëkkul bu génnee ñu am ndam si kawam non dañ fiy bàyyi booyi parce que tey jii mbër bu def onze combats dix victoire am si benn defet te ñëpp say moroom nga ko bëreel. te musu ki la daanoon sa fàq na. ba bàcc segaas mu ma man ku ma daan même su ma mënta fayu tamit dina am ne ni ma fayoo moom daan na ma mais ñaar ñu ko daan maa leen daan. Mbañi Keege ko daan. naawtal nga ko mu génn réew mi. non non def ma ko daan Mbañi Keege moo ko daan ak Boy Barnier. te ñoom ñaar ñëpp daan naa yaa ngi dégg kon fay naa yaa ngi dégg man kenn man kenn du takkal sama yoon. léegi am na ay booy yu fi nekk rek yoo mën a bëree ba léegi jox naa la Dame seen daam seen a ngi fi Ada ngi waaw ñooñu ba tey samay ñooñu samay ñooñu si booy yi gañ bokk te dañ ne woon caatu Yokaaf moo sës si booy yaa ngi dégg daan naa ko kon booy dama ngeen fii baax ñooñ du ma seen morom. ñoo morom ñan. barki Alxuraan ni kër nga wax su ma su ñooñu su ma bëggee ñoom daan ngeen dañ naan xamoon nañ ko. Ada non Ada Fass su ma moroomam Ada Fass man maa bëri grand combat moom bu bëgg spécial. loolu day dara yow lañ njëkk a régulariser. mais mais man maa bëri grand combat. parce que yéen lañ njëkk a régulariser yéen a moom date bi yéen. journée bi man maay grand combat bi ak même buñ ko régulariser naa man maay grand combat spécial nga bëggee du ma bu dul loolu sax man même bu nekkul loolu bu bëggee woon grand combat ma bëgg spécial du ma moroomam. Ada Fass doo moroom. xam nga tax caatu yi nga xam moo sës si booy man bëggee ma ak benn mag yaa ngi dégg moom mag la dem bëree man bëggee ma ak benn mag yaa ngi dégg man déggoo lu ma wax de. mag la doon bëree yow ñeme nga kan Ada Fass du ma mu boo yooyu man instant bi damay xool sama kanam gis nga man gi gars yi bëgg man gis nga bëgg mbiktu mbagg boo gis magasin ya nekk si xol bi ak ay gi ko mbër waxee ak ay pël futa yi jaay yaa ngi dégg loolu moo nekk suñu xol dama bëgg làmb ji tey jii ku si mel ni Zarko wala Modou Anta ñaar ñooñu dama ngeen di ñaan ñu may ma ngir yàlla. Zarko mi Zarko wala Modou Anta. nañ ma Zarko nga wax de. Zarko wala Modou Anta nañ ma may chance buñ ma mënta may chance bu ñu bañee ba bañ. bu ngeen xoolee ñu bañ mun naa rimal kenn koo xamante ni su ma bañul man man su ma ko bañul moom mënu bañ ci làmb Modou ja yaa ngi dégg gi gin bu yoof bi may bëgg moom moom moo jël avance am moom moo ñëw jël si xaalis avance bi ñëw war na dafa may daan wax lu nekk ñu dem ma bëree gin bu yoof duma ko daan ko jour boobu jooy metti nga jooy si stade bi yaa ngi dégg na ñëw ñu bëree. kontaan naa ci. jaajëf Gamine.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 francs loge 5000 francs petit nee maa ngi ciy ànd ak pro lavage bi xew ci jamono si tëbu ngor caatu rëbës le 6 mars stadium Iba Mar Diop